الحمد لله الذي خلق الجنان والفراديس لأوليائه الصالحين وجعل الموت طريقا لها لعباده المؤمنين وأكرم فيها أهل طاعته المحسنين ثم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الواحد القهار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وهو المجتبى المختار شهادة تنجي قائلها من حر النيران وتنيله برق الرضوان وعلى آله وصحابته ما أتل الملوان وبعد عباد الله فيقول رب العزة سبحانه في محكم تنزيله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فهذه دعوة من الله سبحانه لعباده كلهم أن يسارعوا إلى كل خير وإلى كل عمل صالح حتى يفوزوا بمغفرته وجناته وأصحاب الجنة هم الفائزون فما هي الجنة ولماذا خلقها الله وما صفة من دخل إليها وما هي صفاتها وما أسباب دخولها هذه النقاط المهمة سوف نتناولها في هذه الوقفة mbokk yi gannaaw bi ñu jiitalee sant borom bi nga xamante ne moom mooy yeeyoo cant ndax bam ñu bindee ba pare nag ci coobareem bindee aljanna yu kawe ya préparé ko nag pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay ñoñam ñoñam ñooñu nga xamante ne balaa ñuy mën a yëgg ca aljanna boobu mu leen préparé. il faut ñu daa ñu jaar ci buntu yi dee itam ci biir aljanna boobu képp koo xamante ne yaa ngi doon góorgóorlu ci rafetal ci topp ko nee na dina la fa teral boo xamante ne lépp loo sonnoon ci coono da ko fàtte di ci teg nag gannaaw cant ak ngërëm di fesal ngëm boo xamante ne làmmiñ moo ko tibbee ca xol di koy wéral ne amul beneen borom ku ñu war a jaamu ko dul borom bi tabaraka wa taala moom kese la ndax mooy ki not ndax kenn la di fesal itam suñu cofeel ak suñu mbugeel ak suñu toppeel ci sàng boobu nga xamante ne moo ko yónni mu mat ndaw mu ñëw matal liggéeyam rafetal leeral yàlla tànn ko def ci moom jikko yoo xamante ne mat na de ko moom nag ma la yaakaar ci ñaari seede yi ne ñu ngi koy wax ak képp koo xamante ne wax na ko la musal ko ci tàngooru safara ba te jox ko ca ngërmandeem yoo xam ne ju kawe ya di koy ñaanal nag yàlla wàcce ci moom jàmm bu dul jeex moom yonent bi sallallahu alayhi wa moom ak ay saxaabaam fekk àdduna gi gannaaw cant yooyu ak sedd yu wér yooyu ñu dégg borom bi tabaraka wa ndax ñun lay waxal te duy waxal te gaaw la wax moo wax ci alquran ne gaawtu leen njëkkante ci njëggal bi nga xamante ne yàlla préparé wu ko lu dul pour yéen aljanna boobu nga xamante ne bind ko lu dul ngir yéen aljanna ba boo ko nattoon ci asamaan suuf nee na aljanna ba dina leen ubb wala mu tolloog ñoom waaye li tax ma préparé ko ak lu mu yaatu yaatu lu mu yanj yanj pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ma a man borom bi tabaraka wa taala mu mel ni yàlla dafa woote woo ay jaamu ne leen njëkkante leen ci lépp loo xamante ne yiw la njëkkante leen ci lépp loo xamante ne jëf bu rafet la pour mën a am ca njëggal boobu mën a am ca aljanna boobu te aljanna boobu képp koo xamante ne jot nga ca nag bu boobaa te xew yàlla ci yàlla kon nag aljanna boobu mooy lan ak lan moo tax yàlla bind ko ak ki fay dugg naka la fay mel ndax comportement ba bokkul ak fii ak itam aljana boobu lan la yàlla def ci ay xiiwal ak lan mooy waral nit di war ci àdduna bu déggee bu toll noonu fii ci àdduna ku ci nekk di góorgóorlu ci loo am dëkkuwaay bu jàkk dëkkuwaay bu yaatu bu rafet fii kon buñ la waxee aljana bu boobaa nag war nga caa góorgóorlu bu dee aljanna pour nga xam ko kër la boo xamante ne kenn moomu ko ku dul borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xamante ne wa rabbul arba mooy ki moom ñëpp te ñàkkul dara nag léegoo nga dem ci kër nga ne kër gii ni ma ko gisee boromam ñàkkul dara kon yàlla ci boppam nga xamante dara kon kiram war naa jàpp ko kër googu nag mu préparé ko pour jaamam yi nga xamante ne ñoom ñooy ko gëm préparé ko pour bopp ndax amu ko du pour ministre du pour gouverneur du pour kenn pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko gémoon moo xam yonente yi la moo xam ñi nga xamante ne déggu nañu ci jëflanteeg yàlla moo xam ñi nga xamante ne ñoom ñoo faatu ci yoonu yàlla muy suhadaaw yi moo xam ñi nga xamante ne sellaloon nañu seen jikko ya ak seen jëf ya ak yi nga xamante ne nag loolu yëpp ñu ngi ko teg ci gém yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te topp ko yàlla préparé ko pour ñoom gannaaw ba nga xamante ne seetal na leen ci bakkaar ya ndax bakkaar bu dugg aljanna ndax bakkaar dafa tilim li tax nag yàlla ci boppam tuddee ko aljanna ndax képp koo xamante ne dugg na fa lépp luy teraanga ak mbégte dana la fa fekk fii ci àdduna léegoo-léeg moo am nu lay metti loo xam sa fan la léegoo-léeg nga am lu la metti aljanna nag nee na mbégte ak kontaante bu ma sëkk na moo koy xaar jaam bi برم تبارك وتعالى جاء القرآن دني وح الجنة بمنومة من عرض وسبوات تحنا بيني نني كم أنك هيرقل يوم نوانتي يوم نتبين يا وحنا الجنة دفتو لك أسبارك شوف بفكر أن الجنة نقوم بنا أسبارك شوف كل سفر فلنا نكبين يا وح يوم نتبين صلى الله عليه وسلم تنتبونه سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار إذا؟ yonente bi ne ko bu dee noonu ngay laajte comme bu bëccëg ñëwee ana guddi bi fi nekkoon borom bi tabaraka wa taala ci hikmaam mën na bind lu fees asamaan ak suuf te xamuloo fu mu féete moo tax mu wax la ci alquran ne baabun baatinuhu fii rahma wa zahiruhu min qibalihi al-azab nee na boo xoolee lan cay la cay feeñ aljanna la budul jeexati waaye nag la nga xamante ne moo la ca la boroon nag mu ne mbugal la boo xamante ne kenn attan borom bi tabaraka wa taala ci làmmiñu yonente bi mu ne ñu fi jannati maa laa aynu raat li ma bind ci aljana seen bot masu koo gis seen nopp masu koo dégg seen xel masu koo xalaat lu ngeen mën a publicité ci seen télévision yi manu leen masu leen a gis lu mel noonu lu taaru noonu lu rafete noonu kon ñu bàyyi ko yàlla moom mi nga xamante ni moo ko gis mu jox ñu melokaan moom borom bi tabaraka wa jox ko ay tur moom aljanna boobu tur yooyu nak du lu ko jox way daf ko lambo mu mu njëkk koo tuddee daaru salaam mooy këru xiiwal ci alquran mu ne lahum daaru salaam inda rabbihim préparé na len ker bo xamante ne jàmm kese moo leen fay xaar ak sen wa li ko waral mu tudde ko salam daaru salam di anna dakhila ila janna qad salima min kulli akhir képp koo xamante ne yàlla atte na bi nga dugg ca aljanna lépp luy gaaf jeexal nga ca wa min kulli balaa in nattu jeex na fa wa kulli makruhin lépp luy métti la itam amu fa fii la am foofu fa laa tankiid wala tanri du fa nax-naxi njaqare du fa dab nit ki alayhi salaatu wasalaam wax ko ci xadis ne yubtaa bi ashqa ahli ahli dunia min ahli janna فيغمز غمزة في الجنة فيقال له هل رأيت شرا قط فقال ما رأيت شرا قط ولا مر بي شر قط yonent bi ne danañu indi koo xamante ne moo gën a sonn fii ci kaw suuf koo xamante ne feebar na wala laago na ñàkk na lu metti lu nekk dal na ko mu dajale ko ñu indi ko yowmal qiyaamati nee na dugal ko ci leeru aljanna tuuti génnee ko laaj ko ndax mas na yëg coono ci àdduna mu ne leen masumaa yëg coono ci àdduna kon fàttali kon aljanna neex na neex na boo xamante ne loo mën a jànkuwante ci àdduna ci métti na boo fa amee benn seconde kon jaar nga lu yàlla ko jannaatu adni adan ci lugatul arab daf koy wax la muy firi adana rajulu fi lmakani ay aqama fihi toog na fa ay fa lam yartaki wa kadanaka noonu addaxilu ila aljanna kay dugg ci aljanna laa yartahilu anha abadan du fa génnati wa ma hum anha bi muxrajin alayhi salaatu wasalaam ci njàngale mu ne ñu mu ne bu ñu demee ba yowmal qiyamati ñee dugg aljanna dugg aljanna ñee dugg safara dugg safara nee na yàlla dafay indi dee mu mel ni benn kuyu xar boo xamante ne bu rëy la bu ñu kukk ñu ñëw tek ci digante wa safara ak wa aljana ñepp jakar moom mom ñepp ko xamé ndax ñepp ca jaar samu nga fi la gis moom nga dul xàmme waye de fa mu jaar ak nit yi bés boo jàkkaarloo moom nga xàmmee ko xamé xàmmee ko yàlla ci bopam ne leen ndax xamé ngeen li ñu ne ko xam nañ ko de ndax moo ñu fa jëlee ca àdduna na bañu ko yalla ci bopam da di jël de rendi ko ci seen kanam ñom ñepp ñu jàkkaarloog mom mu ne bu ko defé waa aljana gën a yëg ndax de amatu fa wa safara gi la nakar ndax won na len ya ya ni genn amatu fi ci safara yalla ci yalla yàlla tuddewaat na ko jannaati adni ne inna alladina amanu wa amilu jannatin na'im inna alladina amanu wa amilu salihat lahum jannatin naim tudde nako ker go xamantene ker bu neex la banex ker bu banex te banex mo yàq du fi li tax yalla tudde ko naim moy banex li maa fi ljannati min alladhairi la nekk ci aljanna ci neex na wala ataay bi ak rafet na lépp lu neex ci làmmiñ lépp lu neex ci nit ki mu di koy xool wala mu di koy foon dañ ko fekk ci aljanna nga xamante ne yàlla ci ko moo ko bindal boppam duur yoo xam ne dafay sax ci suñu suuf bi nga xamante ne xet ba sa neexu mu préparé ko nag pour ñi nga xam ñoom ñooy gaayam bi ñu di koy xiiwloo ci biir ak ci biti ndax léegoo-leeg ba neexu ci biti duy neex waaye ba neexu ci biir léegoo-leeg koy dàq mu ne nag ñaari banex lañuy boole ci biir ak ci biti kon yi yëpp ay tour la yàlla jox ko aljanna pour ñu xam ne lii la ko préparé lan moo tax nag yàlla binde aljanna ak lu tax mu préparé bu njëkk ba mooy xata la yastawi asalihu bi taalihi ngir ki baax ak ki yees ñoom ñaar bu ñu toll mu ko ca yoomal qiyaamati wala muxsinu bil musii kay def bu baax ak kay def lu jagal di duñ fa tolloo wala mu'minu bil kafiri kikim ak ki duñ fa tollo wala al mazlum bil zalimi katon ak ñu toñi tam duñ fa tollo li tax yalla bindi anja tax moko wax wax ko musa ne ma safara ngir soxor waye dama baña dugal yemale ñima bañal ak ñima nangul ci benn kër gi qur'an ni afana jaalu muslimina kan mujrimin malakum kayfa man yalla defuma duma len yemale bu ko abadan mune la laa yastawi ashabun nar wa ashabul janna ñamay duggal al janna ak safara masul yem ci man yalla ndax ashabul janna tumul faa'izuun ñay dugg ci al janna ñoo ngi texe yàlla ci yalla ko yàlla itam tuddee ko wala li tax mu al janna bokku na ca hatta yoo am raful izzati subhanahu al muhsin al ihsani ngir rek ka gor di def lu bax fi ci aduna bu yomal jote mu man ko jox ay payam mu xamne jaroon والمجاهد عن جهاد يقدم قربه لدى الجهاد موخم تي كوت خم خم لا موخم تي جيل جاسم لا موخم لام دون ديف جار لا كو مفيكو والصابر عن صبره كدوم مون لا تخول مو دوم مون بتي بوكم دا رافتال يالا فاي كو الجنه موخم لا جارو لا والمحتسب وجه الله عز وجل في كل بليه جرت عليه كي خم تي اي نك دابنا كو اي تيونو دابنا كو مو مون تي يالا تا mu xam ne yowmal kiyaamet bu ko yàlla fayee mu xam ne lii moo tax mu fay ko mu ne kon jaar na ko ko ci hadithul qudsi yàlla di wax ak yonente bi sala sallam ne ko yaa malakal maut yow malakul maut kabatta walada abad abdi sama jaam bi doomam bi ndax jël nga ko ci loxom fat ko kabatta qurrata aynihi ndax jël nga ki nga xamante ne mooy xolam wa samrata fuadihi ki nga xam mooy meññanteefu xolam kon ka mu bëggoon moo xam xarit la moo xam soxna la ak ku mu mënti doon nga bëgg ko bu malakul mawti yegsee yàlla daf koy laaj ne ko ndax jël nga kii ca moom malakul mawti ne ko sa ndigal moo tax na am jël naa ko bu dul woon yow du ma ko jël fa yaqulu a izzati yàlla tontu malakul mawti ne ko wa maa qaala abdi kooku nga xamante ne jëlal nga ma ka koo jege mu bëgg ko torop ak ku mënti doon ci moom ndax lan la wax bi nga jëlee kii nga xamante ne moom la bëgg ci xolam lan la wax nga dégg ko mu ne ko xamidaka wastarja def la sant daal di del si waat ci yow te mooy kalimat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla ci boppam ne kon loolu la wax mu ne ko waaw mu ne ko àndal ak malaayka yi ngeen dem dugg ci biir aljanna seet fa place bu yaatu ngeen tabaxal ma fa kër bu ci gën a ci kër yi gën a rafet ca aljanna te ngeen tuddeel ma ko baytul hamdi néeg boo xam ne kër boo xamante ne këru cant la ñu préparé ko nag ka nga xamante ne moom ma sant bu ma jaamati jotee ñu dugal ko fa mu nekk fa ci sant ndax neex na rek moo fa nekk ci beneen xadis yàlla wax ci xadisul si nee na ida ibtalaytu abdi bi habibati bu mën na too sama jaam ci ñaari lu buggu mu fassiri ni ñi nga xam ne olamaawul xadis firee ko ne mooy ñaari botam fa sabara mu muñ ko nee naa wadlubu minhuma aljanna comme mu ñaan na ma ko rek nee na man dinaa ko fa fayee mu doon aljanna yu kawe ya fii nag ngay xamee ne kon diggante aljanna bokk na ci li ko yàlla li tax yàlla bind ko pour man a yaram nit ñi saa soo xamante ne dem nañu du bugg a désordre soo xamante ne mbir yegg si na du bugg la man rek boo fàttale ko aljanna ak la ca yàlla dig kamuñ bu boobaa rek nga dal di li tax yàlla bind aljanna bi léegi ñetteel ba mu ne wali annaha umniyatu saalihin ñi baax ñépp aljana moo leen tax a baax bu duloon aljana leneen moo fi ne wa mahwa afidati saalikiina ñii jaamu yàlla seen xol yépp soxlawu dara ci àdduna lu dul ca àllaaxira aljana ba leen fa yàlla di leen jël ndax kii jooy jooy yu métti ya mu wéet ak yàlla ngir ragal ko day jooy jooy noonu du dara lu dul yàlla man ko musal ca safara may ko aljanna naqari ba nga xamante ne moom la nit ki di yëg ci xolam ak njàqare ngir naka lay amee ngërmande yàlla dara taw ko lu dul lan lu dul mën a am aljana waaye itam cëru nit ki moo xam loxo wala làmmiñam wala tànkam lu dul ne dem uti yàlla wala dem jaamu ji yàlla moo xam farata ci moo xam faratay la moo xam faratay la nit ki di ciy di koy def soxlawu ca dara lu dul mën a am ci aljanna yu kawe yooyu saa yi soo xam ne nit ki fàttaliku na aljanna rek lu mu mën a sonn ak lu mu mën a góorgóorlu dina ko xeex na ne la koy xaar moo kii dem jihaad ak dee lu mu méttee nga dem wuti ko nit ñi di yow nga dem wuti dee nee na bu dul woon aljanna bor moom du jóg dem defi ko moo tax ku mel naka Bilaal ibnu Rabaax nekkoon sahaabiyul jalil radiyallahu taala anhu ba dee yegsee soxnaam dal di jooy dal di yuux ne waa huzna fee fu ma jëm man ak njàkkare bii nga xamante ne moom mooy waaja topp nii بلا نكو دبل وحدي لا بكو وحدي بل قولي وفرحتا وهل لم يكتبها حمد لهم وما يخاف نحن قولا ويغدا نلقى الأحبة في بلا سبرك ما سمى داي جنا يدجي تموي كان موي محمد وصحبه موي النبي صلى الله عليه وسلم كون كيف بو حمد لهم مي غورول سي جامو يالا بس بودي يكسي تا كون يكسي ndax woon na ko ne bu fi jógee dafay dem daje ji ak ñaan ak soppeem ya te mooy yonent bi sallal ak saxaaba yi nañ yàlla may boobu allahumma ahyina muslimin wa mu fi wa na bi na salihin ربنا wa لنا وعلا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وقل ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين kon loolu mooy aljanna kii dugg aljanna nag waxuma fii ci àdduna naka lay mel waaye bu duggee aljanna naka la ko yàlla di defaraat ndax yàlla wax ne inna anshanahunna inshaa képp ku dee ba dugg ci biir aljanna yàlla def lay réparé waat beneen bind la lay bindee bu bokk la fi nekk bu ñëk ba ci seen melokaan yi wala seen yi nga xamantene ne noonu la ñuy mel ñi dugg aljanna ñu tuddal la ci fii si nii waxal bi naka la leen yàlla bindee ak ay ñaata at la ñuy am alayhi salaatu wasalaam comme moom la yàlla yónni mu ne yadxulu ahlu aljannati ala sinni salaasin wa salaasin nee na ñi dugg aljanna ci aar fanweer ak ñett la ñuy toll mooy atu fanweer ak ñett ni yàlla bindee woon aadama ci mat na sekk noon la ñëpp di mate kon ki amante ne dafa amee woon laaw moo xam dafa lafañ moo xam dafa selmax moo xam dafa am feebaru jabet wala moo xam dafa am feebaru cancer ak lu manti am fii bu yomal kiyaamati jotee dara du ci manqué léppay mat kenn du fa ànd ak feebar kenn du fa nekk itam ci mat yooyu Ibnu Qayyim al-Jawziyya di wax ne boo gisee yàlla def at bii ndax ci la nit ki di gën a amee kattanu ci def lu ne bu dee bànneexu ci la boromam di gën a bànneexu bu dee man man itam ci la nit ki di gën a mën a def la nga xamante ne mooy man man a ñu ko aljanna bokk na ci seen melokaan fii tanazuhim anil fadalaat dañu set wecc ci lépp loo xamante ne mooy tilim tilim wala dara ñoom du ñu dem sawi du ñu dem cabinet ji yonent bi moo ko wax nee na ahlul jannati laa yabuluun waa aljanna yi du ñu dem sawi foofu wan ak amu fi ci aduna ngay tabax sa kër préparé toilette bi ak wanag bi waaye amu fa mu ne nag aljanna la nga xamante ne moo fa gën a neex mooy wanag amu fa ndax fi ci aduna léegoo-léeg nit ki ñàkk ci sa bopp ak loo man di doon kilifa ak loo mag-mag il faut nga soxla wanag mu ne nag aljanna loolu amu fa lépp loo xamante ne nekk na fa daal moom mooy këru xiiwal waaye tilim nekk mu ne sax du ñu ñandax maanaam du ñu yi tuuf ni sax duñ ko def yonent bi nee na li muy peñe woo nee na peñe ya wurus lañ ko defar nee na seen ñàkk nee na dafa mel ni comme parfum sallallahu alayhi wa sallam ñàkk bu neex lay boo gisee ñu niw lañ ko doon xet bu naqari bi foofu nag fi ndax ñàkk bi ci boppam moom mooy parfum benn waaye boo xamante ne du jullit labbe la ñëw ci yonent bi ne ko dama laa bëgg a laaj waa aljana yi naka lañ fay nekkee yonent bi ne alayhi salaatu wasalaam nee na waa aljanna yi kenn ci ñoom yàlla dana ko jox kattanu benn téeméeri góor fii ci àdduna ci lekkam ak ci naanam ak ci dem ci ay soxna foofu nag amul lekk bu bari ba dépense bi jeex déedéet la fa nekk du jeexat waaye dina yow yonente bi bu fekkee ne danañu lekk danañu naan léegi nag cabinet ba nag ak saw ya yonente bi ne ko loolu amu fa foofu la fa xew mooy dañuy ñàkk ñenn ñi mooy tissool yi nga xamante ne bu ñu tisoo rek lépp loo xamante ne nekkoon na ci ñoom rek dañ di jeex tàkk yal na yàlla boole teg ba ko ñetteel ci seen melokaan ya dañu set wecc ci biir ak ci biti fii ci àdduna léegoo leen nga gis gémmiñ gi am xet ci biir la bàyyi ko léegoo leen nga gis itam ñàkk bi ci biir la bàyyi xet bu naqari boobu yëpp amu fa wala lépp loo xamante ne tilim la daal amul ci ñoom ñay dugg aljanna moo tax alayhi salaatu wasalaam ne wa inda baabil jannati shajara بلا ني دوغو الجنة امنا غرام بو ماك بو يخرج من اصلها عينان نينا تي رونام امنا نياري ديك يو فاي ген نياري ديك نك اذا شربوا من الاولى بو ني نانا تي بو نيوك با جرت عليه نظره النعيم دا نك سين يرام دي رافيت ليس امول ديو امول دار امول يرام خوتير وخرج منهم ما في داخلهم من كل بحث وأذى لب لي متنا لب لو خمنتنا جاكر لب لو خمنتنا متي تخلى wala lépp lu am méttitu yaram la ya nit di ko yëg ci biiram nee na jeex na ci ñoom keroog wa idaa ightasalu min as-saaniya bu ñu génnee ci boobu sàmm ca beneen ba nee na lam tash'ar as'aaruhum abada foofu doo gis sax boo xamante ne karawam dina jaxasoo ba ñu di koy peñe peñe ba taar la fa rek waaye karaw yi dafay yiis léppay rafet léppay dem léppay baax nii la yàlla ñu ngi war a aljanna alayhi salaatu wa salaam ne ñii dugg aljanna nag danañu def par mbooloo mbooloo di dugg alquran a ko wax wasiqa alladina taqaw rabbahum ila aljannati ne zumaran zumara par mbool ibnul qayyim al jawziya ne ñi nga xamante ne ñoo bokkoon di def benn jaamu yàlla nee na bu yomal jaamale jotee ñooy ànd di dugandoor aljanna bu leen ci yàlla gërëm moo tax li nga xamante ne moom la mag yi doon préparé ci jamono di ko doon def mooy léegoo lekk ay mbooloo yu dajaloo ci yàlla nag yu di koy tuddee léeg-léeg daayira yi ak yu mel noonu ak façon xeetu ndaje yi xew comme li xew nii ci jamono yii te mooy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam ña cay daje nee na bu leen ci yàlla gërëmee bu yomal kiyaamati jote ñoom ñooy ànd dem dugg aljanna lan moo tax ndax ay nit bu ñu bokkee xiiwal ànd ca mbégte ba dafay gën a neex ndax dañ cay wéttali wante boo wéetee ci xiiwal rek bu boobaa du neexati ci yow mu ne bu dee waa safara itam naka noonu yàlla ci yàlla musal ñom ñi bokkon bakkar di koy def mo xam ci boîte de nuit mo xam ci sabar ya mo xam ci tiaxal ya wala ñaar ñu bokkon di def benn bakkar bu yowmal qiyaama di jotee ñooy àndaat du wala ci safara bu leen ci yalla mel wala ta dugal ci biir safara dana ci yalla musa ngir nak ñom ke mën a toroxante ko xam lay xew ci kaf ya xam ne ñoom kese ñoy toroxante dul sa policier nga xamante ñom leen di garde neena na buntu aljanna nag yàlla du ko ubbil kenn ku jiitu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith mu ne damay ñëw ba ci buntu aljanna ma fogg malayka bi nga xam ne mooy garde te mooy ridwaan mu ne kan mooy kii fogg ma ne ko man la muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon yow dama yàlla waxoon ne bu ma ubbil kenn ku dul yow yow muhammad lii boo ko xoolee te mooy suñu waaj dangay xam ne kon yàlla màggal na yonente bi sallallahu wa sallam li moo tax léegoo léeg ñu di koy màggal ci biir at bi yàlla ñu ko yàlla na bu dee aljanna nag melokaanam ak kiram ya nee na juróom-ñett lañu yonente bi ci xadis ne ñii julli am nañu seen kër bopp ñii def jihaad am nañu seen kër bopp ñii génnee sarax yi am nañu seen kër bopp ñii oor am nañu seen kër bopp ba tudd na ko sa ne boobu mooy rayyaan bi yonente bi waxee ne Abu Bakr Siddiq ne waaye yow yonente bi mu ne ko naam mu ne ko ndax bu dee kenn koo xam ne def na yii yëpp ndax mën na faa am kër fii yëpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah kay ku def yi yeb man nga am kër ci fi yeb moo mu ne jannaatin jannaatin ay al yu kaw du ben kër fi ci aduna da nga gis ko am kër ci région bi dem ci beneen région am fa kër dem fee amat fa kër quartier bi am na fa kër aljanna itam akhirah non la da nga gis ko am kër ca Firdaws am kër ci Adan am kër ci naay be kër ye ya jeex ak lam am ci gor lo motax yonente bi Abu Bakr ne yaakaar naa nag yow nak ci ñi fay gëna bari bëri kër ci nga bokk bir al aljanna ndax yi yëpp Abu Bakr moo ko def fepp foo xamante ne danañ fa jaamu yàlla ngërmande yàlla nekk na fa rek ne Abu Bakri góorgóorlu woon na ca bu dee suufu aljanna nag fii ci àdduna dangay gis ku jëndee benn terrain kese lu mat ñetti téeméeri million danay am ci ñuy jënd kër nga xool aljanna aljanna duur loo xamante ne lu yomb la yonente bi ne boo xoolee ci biir aljanna tabax ba benn muul wurus lay doon beneen muul ba ca tegu doon or nee na boo xoolee la nga xam mooy karo ya dafay génnee xet bu neex la nga xamante ne moom lañ ko peinturé nee na zafaraan la garab bi ñuy tuddee zafaraan mooy zafon xet bu neex lay génne nee na wa xasbaaquha al lublu wal yaqut béton ba nga xam moom lañ koy tabaxee nee na lublu la te mooy peme ak jama képp koo xamante ne dugg na ca aljana yonente baay wax na nee na dina fa xiiwlu te du fa naagu ci lépp loo xamante ne mettit la du ko fa yëg te ku fa dugg nee na du deeati te foofu lay sax amul génn nee na seen yére ya du du tilim ba dem fóoti ko te nag naka noonu itam seen mbune du ñu dem ba màgget ay xale la ñuy doon continuer lii la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ca waa aljanna bu dee deex ya nag nee ñeenti lañ fii ci àdduna da ngay gis en coupure nañ ko ndox ñu koy ndox xam nañu ni mu demee mu ne aljanna nag coupure ndox amu fa waxuma nag ndoxu la ñuy tuddee ndoxu naan kese ak ndoxu sàmm alquran ne fiha anharun min maa'in ghayri asin jarul sax dañuy tuddee eau de javel ngir ne dafa am ay microbe ci biir ndox bu set la wa anharun min labanin soow ba itam naka noonu lam yataghayyar ta'amuhu du ma sa changé nag jarul dugal ci frigidaire wa anharun min xamratin ladatin li shaari nee na ak dex yoo xamante ne sàngara te kenn du ko naan ba man di nag kenn du ko naan ba mu yàq sa yaram kenn du ko naan ba mu yóbbu sa xel ba neex kese moo fa nekk waaye itam wa anharun min asalin am na fa ay dex yoo xamante ne nee na lem la mu safan bu set wécc boo xamante ne tilim tilim nekku ci wala hum fiha min kulli samara lépp luy xeetu meññeef muy kenn nit di koy soxla nee na mu nga ca biir aljanna waaye yemu fa mu ne wa magfiratu min rabbihim jël mu ne ca toppee dara ba dina rëy ci dex yooyu nag ñu di koy tudde al kawsar sallallahu alayhi wa sallam masoon di jàngal sahaaba yi inna aatinaaka al kawsar sahaaba yi ne ko waaw lan mooy kawsar yonente bi ne benn dex la boo xamante ne yàlla ma ko jox man maa ko moom كسبا لغلني كما قبل الخيال ربي ندوشام نينا قد يمنا ولا كبارم بي نا نيغا خمنا نينا موي كبارم نينا ورث لا لا فا نيك تي اي خير ورث لا اك جما نينا لا ما خمنا نينا موي ندام يان فاينالي دا فا بري دا ملني نجوم السما بيدي واسما نينا سما خيت نك نيو نيو نان سيفا بو ني ييكسي دا ني فك مخرك ويخ تال جنا ميخ لا ني تودي مير nee na mooy gën a neex la ñuy lem nee na ku ca xasa naan nag doo marati mukk te safara ku fa dugg nag mar moo la fay xaw kon ku ca naan rek sa garanti aljanna taxaw na bu dee soxna ya nag ya fa nekk ca aljanna nga xamante ne ñoo yàq jamono yàq adduna mu war a tax ñooñu war a tax nga bàyyi ñii borom bi tabaraka wa taala ne ni ma leen bindee leer la dangay taxawu di xool sax yax ba nekk ci fiir yaram bi nga di koy seet ci biir ngir nañu sedde ak nañu leere yonente bi nee na ci biir àjjana dañuy toog ba waa gis benn leer ñu foog ne xanaa yàlla moo leen di feeñu si ndikkite benn soxna moo toog ak jëkkëram di waxtaan muuñal ko rek leer boobu noonu moo tax ñëpp foog ne xanaa yàlla la ñuy gis kon ñooñu war nañu tax nga moo nga moytandiku ñi fi nekk tey dem na mën a fekk sa bopp ya nag jigéen ya fa nekk te ñun ñu soxla ko ci suñu soxna yi léeg la dañu am kersa kersa ci la lépp nekk bés bu ñàkkee ci nit ki rek bu boobaa nit kooku amatul njëriñ ndax alxayaatu kulluhu xayrun la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon jigéenu aljana yi sax bokk na ca lañ leen di xamee mooy dañuy bëri kersa wowuñu bott waaye jigéen yooyu itam dañu set wecc alwaajul mutahhara ñoo xamante ne xaydu du leen ñëwal loolu ñuy tuddee bi rek du leen ñëwal pour jigéen yi ñoo tax te jigéen ñi nga xam ñoo koy gis gis nañu ñoom nam leen di sonalee mu ne coono boobu nag amul ca aljanna alayhi salaatu wasalaam di wax ci seen melokaan yu rafet ya nee na ku ca jot am nga lu dul jeexati ci xéwal yu neex ya mu ne li gën a rëy ca aljanna nag yàlla di koy may gaayam yi mooy keroog ba yàlla di feeñu jaamam yi wal leen boppam sallallahu alayhi wa sallam ne waa aljanna bu ñu duggee aljanna ba toog waa safara yi dugg safara ba toog nee na yàlla dafay woo yónnee ñu woote ee yéen waa aljanna ndax amati ngeen lu ngeen soxla ca yàlla mu war leen koo defal waa aljana yi tontu ne déet lim ñu defal taaral nga suñu jëmm yi musal nañu ca safara te ku yàlla musal ci safara mucc jël nga suñu balance yi diisal ko ba gàccewuñu ci suñu kanamu morom ya kon defaluñu dara lépp lo ñu war a defal defal nañu ko lépp mat na dina ci saasa ya yàlla dal di génne kiiraay digganteem ak jaamam bi ñu jàkkaarloo moom nee na amul lu ko gën a neex seen bot yi di kan bànneexu سنتري دي بانيهو بسن كرامي دي بانيهو موتاخ يالا لي وجوه يوم اذ ناظرا اي خرام كان كانم يو تاري رافت نخ الى ربها ناظرا ني ماي خول كان خامل موي سن بروم لي خامو لين بيند كون لي گنا ري تا الجنه ديكو امام مالك واخي نينا موم موي گيس با لي گيس بروم بي تبارك وتعالى يالا بي يالا ني تيجي كو نك الجنه بي اك ني مو مل اك نيكو يالا بيندي نخ يالا جوخول كين مو دم ديفاريكو moom ci boppam moo ko tabaxee loxo yu boppam tabax ko ba mu baax matal ko ba mu mat sëkk nag dara manqué wu fa mu doon loo xamante ne lanam la lu muy jaay marchandise am yonente bi wax ne ala inna silaatallahi xaaliya nee na marchandise yu yàlla bul kenn foog ne nag dafa yomb déet dafa cher alquran ne ayatmau kullu mriin minhum an yudxala jannatan naayim ndax da ngeen foog ku teg ci yéen leen ne carax ci biir aljana kalla defewu ma ko noonu maa fufatun bil makaari di ko war a yëpp il faut coono lay doon ak metti na moo ko war moo tax bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne na ngeen fexe ba góorgóorlu ndax ragal yàlla te ragal safara ndax ku ragal yàlla ragal safara nee na da nga teel at la jëm nii la koy jaadee wala maa ngi xadis firi ko ne at la jëm bi taa mooy dana jóg guddi di jaamu yàlla fu kenn yëgul te wa man ablaga nag balagal manzila ku teel a jóg nag nee na da nga yëgg iya fa nga soxla motax jog bu di bokku na ci ahmed nga xam kon mbir mi ca aljanna dur lu yom dur la da ngay teb rek dugg fa motax tax iya yonente bi wax sahaba yi ne ala min mushammir lil janna ndax duma gis ci sen bir ku fatane ku góorgóorlu ku pour mën a aljanna wa innaha wa rabbul ka'ba watna ko ci yalla ne aljanna boobu nuurun leer kese moo mën a وخامنتني دافاي ني خوي تي بير تي بير الله وريحانه تهتز اكبنه بو خامنتني دو جيخ وزوجه حسناء اي سخنا يو خامنتني كارو يلو تي بير الجنه يلا واخني ونود ان تلكم الجنه تلكم الجنه دما يوا اجدنا اجدنا غورنا ورست محمدن كو ما في ديكول جوخنا لين كو واي كنتم تعملون سين جيخ موتاخ ما جوخ لين ويكبل لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير تاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها لنا الجنة نك كن أمول تألاخرة كر غنا بمودي كر كموي دك لودول كر غا خامتني في تي ادنا بلاي دي موم لا دون تباخ bu fekkee ne lu baax la doon def di tabax tabax bu rafet nee na aljana lay dugg fa muy waaye su fekkee ne nag jëfam rafetul jëf bu jagadi la wax bu jagadi la nee na fa muy dëkk nag moo ko tabax te foofu du ko neexee yàlla di la hmm. ci alquran ne inna laa ishtara min al muminin yàlla ne damay jaay damay jaay moo tax ndax xool jullit fi ko yàlla teg ak nit doomu aadama fi ko yàlla teg ndax kii jaay mooy yàlla wala kii jaay mooy doomu doomu aadama kii jënd moy borom bi tabaraka taala yalla moy jël doomi adama di jaay yalla moy julit mu'mini la julit moy jaay yalla ku do julit jullit do lok yalla waye julit moy jaay yalla pouvoir bu rebo yalla ci bopam ñew ne dina jënd sa marchandise pouvoir bu rebo ñi nek ci marché bi xam nañu loolu lan la yalla di joxe aljanna lay joxe waye lan la julit di joxe yalla nak yàlla nag anfusahum wa amwaalahum il faut nga jël sa bakkan joxe not ko nag tere ko la nga xamante mom la sa alal itam nga man ko ñeme ko ñeme ko dugal ci borom bi tabaraka wa taala da ngay gis fi ci aduna ku ñeme génnee lu mat million bi téeméer ngir mën a am dëkkuwaay te mënul génne ben million def ko ci ñoonu yalla pour mëna am aljanna yalla du jaxal kat té té la wax motax mu ne la bokku na ci lay dugal nit ki aljanna al infaqu di joxe ci yoonu borom bi tabaraka wa taala alquran lan tanaalul birra mu mufassirina mooy aljanna kenn du am ci aljanna xataa duñ fi ko mimmaa tuhibbuuna lu dul ne ngeen ñeme seen alal di koy dugal ci di neex yàlla. yàlla ci boppam wax ci hadiisul qudsi ne wa izzati wa jalaali wax naa ko si ma toll ci sama bopp fonkee noonu sama bopp te du ma génn ci sama wax laa yujaawiruni fii ki it baxil ne na yow aljana mu ne ko naam mu ne kenn du dëkkoo man ci yow ku ne ku ñemewul alalam ñeme koo dugal ci yàlla nee na maam moom duñ fi dëkk. kon ki dëkk aljana diggante dëkkandooru yàlla la ku nay nag dafa dugg ñaareel ba ca lay tax nit ki mën a dugg aljana assalaat sàmmanteeg julli alayhi salaatu wasalaam jarir ibnu abdullahi di koy nettali ne dañ ma sa toog ci sàng bi moom yonente boobu guddi la ñuy xool weer bi mu taaru ba rafet ku ci nekk di koy laaj di wax lu rafet ci weer bi yonente bi ne leen yowmal qiyaamati bi jotee gis nga ni ngeen di xoolee weer bi di bànneexu non ngeen di jakarlo ak yalla di bànneexu te fofu amul buuxante na waaye nag maa ngi di ñaan bu ngeen ko mané jundi bobu nga xamantene moy jitu jiitu balaa di kenn ci ak julli boobu jiitu balaa na di faddu bu ngeen ko mané bu ngeen rëcc leen bu ngeen di rëcc ñu namu ta moy lan takusan ak lañu tuddé fajar yonente bi ne fexe leen fajar bu ngeen di raw lu mu metti metti leen be takusan bu ngeen di raw lu mu metti metti ñam na fajar diraw nelaw kat yi jaxan kat yi dem fo ibe der bu nga ñew tëdd fo foofu fajar ñan la takkusaan di raw ñi nga xam dañu bëgg aduna ñu ngay kër kër bala ñëw kër timis dugul kon mu ne ngeen mané ñaar yi teja ca ba bu ngeen rëcc ne la da ngeen lo borom bi tabaraku taala ci àllaxira yalla ko yalla ba ko ñette ci lay tax ne ci al janna moy qiyamul leyli di jóg guddi alquran tatajafa junubu anil madajiya يدون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نينا ني جوك غوتي نيبيو ني سين لاليير نينا نيو ني بو يوم القيامه تي جوتي لما نين دنجا تي خول تي خول بو سيد تي بير الجنه كين خام لي مو دو دو دارا نك سين جيف دال في باسكو نيو دون جوك غوتي عليه الصلاه والسلام تي حديث محمد متواتر نيب دي كاي ديغ نك افشو الصلاه ولا افشو الصلاه فخيل نسين نيو ngeen di koy feeñalante mooy fekk leen seen jàmm yeenu kese moo xam ay bokk ngeen moo xam ay dëkkandoon ngeen moo xam da ngeen bokk société di liggéey wala da ngeen daje ci mbir même su fekkee ne oto la ngeen daje sax fexe leen ngeen sekk jàmm ba keroog ba ngeen di tëkkale ko wa atemu taama loo am nga lekk ba suur fexeel xalaat sa morom ndax suur na wala suur nga sedd ko ca wa sidul arhama bokk fexe leen ngeen defar ko te bu leen ko yàq même bu leen ko buñ la ko yàqal billahi ku ko di jotté de len di julli wal nas ni ya di dina jowe bare yalla yalla yere neena bu ngeen koy def tadkhulul salamin al janna bo ma xamum la yalla dig jaama bi dañu fa dug ci anam bu rafet kon bokku na ci lay dugal ci al janna di jobbu di ñu war ci gor gor yalla ci bi wa abdullah ibn umar ne ko bu wa asaman di koy laas mu xey xey du kon bu du jobbu ni nala ko war la yalla mere bokk na ca lay dugal nit ki aljanna mooy di tudd borom bi tabaraka wa taala sa làmmiñ saa su nekk rek nga dafay tudd yàlla moo tax mu ne subhanallah walhamdulillah wat xarsatu naxlin fil janna xarsat naxlatun fil janna nee na subhanallah boo ko waxee wala alhamdulillah wala baat yu mel noonu nee na sampal nañ la benn tàndarma ca biir aljanna dañ koy jeexale te mooy juróomeel ba lay tax nit ki mën a dugg aljanna mu ne mooy jikko bu rafet alxuluqul xasan jikko bu rafet يونتبنا على أخبركم برجالكم في الجنة نحبو لين ما واخ لين سين غور ني ني دوغو الجنة ني نكو ما هكا من النبي في الجنة كو يالا يوني تي يالا دو يوني كودول غور الجنة لاي دوغ يونتي الجنة لاي دوغ وصديق في الجنة كي ديغو تي جيفلانتي ماك يالا الجنة لاي دوغ وشهيد في الجنة كي ديتي يون يالا الجنة لاي دوغ والرجل يدور أخاه في laa yaduruhu illa lillah fil janna ku jóg nam mu bokkam jóg dem seeti ko léegoo def foog nga jël téléphone composé woo ko lan la nga ne ko dama la doon ziar dama la naam yonente bi nee na ku ko def ci aljana nga jëm bu dee yàlla kese mooy tax nga def ko ñii ñooy góor yi dugg aljana seetal nag ndaa yow ci nga bokk bu dee góor wa nisaakum bu dee jigéen ñi dugg aljana min ahlil janna ci côté jigéen ñi mu ne mooy alwadud ki buggu jëkkëram mu gënal ko keneen ku dul jëkkëram jigéen koo xamante ne jëkkëram moo ko a yeneen góor yi aljana la jëm yonente bi moo ko wax alwaluudu koo xamante ne nangu naa sonn ba jural jëkkëram ay doom góorgóorlu nag dañu baax yar la yar bu rafet kooku aljana la jëm nga xamante ne ida gadiba waxoon na ida gadiba moom ndaw si bés bu demee ba mer waxu jëkkëram mer de bés bu ndaw si demee ba mer gis du ko ci jëkkëram jaaxaat dafay ñëw xatta tadaa yadaha fi yadi zawjiha Suku ci kanamu jëkkëram jox ko loxo ne ko jéggal ma ndax la ayuuku ghamdan xatata du ma ne daf mukk lu dina yow sama borom kere dem nga bëgg ne jigéen bu mel nii itam aljana lay bokk su fekkee ne yow jigéen la kon seetal na fexe noo cay bokke kon lii mooy aljana bi yàlla defar ñii la ko dig itam la ko defaree kon nga seet nag boo amoon bokk boo xamante ne wóor na la ci ñii la bokk bi du ko aljana كل بيت مفاتو رك rek dangay dalal sa xel اللهم أهينا مسلمين muñ allahumma ahina muslimin ربنا tawaffana نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القدر وشهاده الاعداء اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا حدا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ولا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين